sëriñ baara mooy sa maam jaajo moo ca gën a gaaw lu wax borom mu ni waaw jaamu yàlla benn jiitu ci jaami yàlla yi méthode bi ñu leen woo saa ne dinaa leen koy faral di firi bàyyi faal mooy ki bàyyi lépp faale yàlla mën ngaa dégg lu ne waaye xamal na li nga faale looloo mat a faale mën ngaa dégg lu ne waaye xamal na fi nga dox jëm foofu mat a jëm mën ngaa dégg lu ne waaye xamal na ki nga lebal bu la fayee nga rus. Mhm. Baye Fall mooy ki xam sa kii ba pare maanu ci Baye Fall mooy ki tooñ ba pare muy jéggale te du tooñ Baye Fall mooy kii man ba pare du nii wala doole Baye Fall mooy kii tane ba pare di dimbalee Baye Fall mooy mën a am muñug suuf te ku ne xam ne ne suuf lu yàgg ci moom mu def la ngay suuf suuf si ñu taxaw tey liñ ko des si àddina bari na lool. tali yaa ngi ci kaw étage yaa ngi ci kaw oto yaa ngi ci kaw lépp a ngi ci kaw waaye nag daa mën a muñ rek ndax isaa isa zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha bis dina ñëw yàlla na ko fii laa la yabloo lu nekkoon ci moom rek bu boobaa moom dalay di ko ci biiram moom suuf lépp tout luy taxaw lu ne rek loola waral suñu borom naan lu ma sa wow lu ma sa tooy dina ma sa wow lu ma sa dund dina ma sa faatu te ñun ñëpp ci biir suuf la leen di kon it Baye Fall war naa am muñug suuf loo muñug yoo fekk njariñ la Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa famille ba mu jógee ñëw ci sëñ Tuubaa ëllëgoon na lool ay mbokk